Nana Kane président groupement yi laay nuyu ba pare ana komis Awa Mbaye sama jabar euh, Fatou Kébé di nuyu di nuyu ba ah, bii ban tur la sax maam tuuti ñang sama cousine bi jóge ba Ndakaaru nuyu naa ko gërëm ko ko di ko ñaanal tànkuy sedd guy di nuyu suñu imaam yi toog fii yëpp sans exception parce que ku di nekk xam naa fan ma def ci sa xol foo leen ma def rek def naa ko sama doom yi jógee Ndakaaru maa ngi leen di nuyu doogo tee teg nag sama rakk ji nga xam ne doom euh, yow ba ñu waree dem màkk sax danga ma ne demal ba pare ma dem kon boog saw ko loo mën ren yàlla na ko mën déwén su ma jotee ci euh, euh, sama présidente bii yow yaa tax munoon ngeen koo yemale Ndakaaru munoon ngeen ko yemale Pikine waaye da ngaa bàyyi Pikine ñëw dugal ma ci ba ma ne ma dugal ci waa yëpp te Mbour yëpp dinañ ne ndax foog naa ne liste euh, deux cent cinquante personnes ma nga nee tege ku ci nekk yaa ngi ñëw di xaar ma ne la su subaa nga ñëw ma bind la donc jeexee suñu président bii nga xam ne moo yërëm ci géej gi muy Ablaye euh, euh, Amadou Ablaye Guissé di ko nuyu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal kër yi ngay joxe yàlla bu mu manqué benn kër képp ku bëgg rek yàlla na ko jox caabe boole ci nag di defal jigéen ñi foog ngeen lee tege fee moom moo ko financé ñii tey la ñu ñëw looloo ñu tardé ci suba ba léegi ñu ngi ci suba ba léegi ñu ngi fi def formation ba a ñëw toog kenn jébbal ñu looloo ñu guddeeloo waaye bu ko ñu noon ñun rek une heure suñu añ pare ndax démb la ñu togg suñuy añ di la nuyu yow soomaa naa la lakkal naa la minute dem na woo la waaye nit ñee ma sonal rek ma sonal mbooloo man mënu woo kenn sama kër gi sax wóoru ne maa ko pour wan leen nag lu tax li tax ma leen na ñëpp ñëw dama leen bëgg a wane ne may ko may ko kër may ngi nii mooy may kër man aw suuf aw ma kër na ko ñëpp waxee rek laa koy waxee. 5500 yi ngeen joxe foog naa ne am nañu ndekki am nañu añ xool ngeen mbooloo mi dama 6 6 6 ba amatuma 6. fi mu nekk ku nekk génnee na sa si sa kër yéen it maa ngi leen di masaw ndax bi ngeen di bindu coono bu ne daj ngeen rang ngeen bitig ba rang ngeen fu ne rang ngeen fa ma yërëm leen loolu def naa ba def lu ma mënul yéen ma ko jaral ndax man femme développement la ku nekk day ñëw ci sama kër gi ku nekk jàppale naa ci sama kër du man nag yàlla la kon nag man ku ñëw sama kër bu doon sama sago loo fi wut si rek booy kenn da nga koy yóbbaale waaye nag yàlla am lépp yàlla moom ñëpp yàlla mooy joxe. subhanallah waaw dégg nga ni ma joxe moo te ñaan naa yàlla képp koo xam ne rek bind naa la wala sama njaboot bind la wala bàyyi ma la ca sama bitik ba moom it dama koy sant di ko gërëm bind la yàlla na la kër li may mujjee nag mooy sama waa xàcce loolu rëndoo. dinaa te dee ni ma ñi may mujjee nag mooy waa xàccandoo dundandoo xàccandoo doorandoo nuyu naa leen sant naa leen gërëm naa leen ñaanal naa leen yàlla nii ngeen ma jàppalee benn lam du yëngu loxo du tàccu nii ngeen ma jàppalee yàlla na ko yàlla jàppalee yéen a ma wóolu boo leen ma wóolu woon du ma ma leen jox boo ma wóolu woon du ma ma leen jox boo leen ma wóolu woon du ma am basan yu ma leen jox boo leen ma wóolu woon du ma yu ma leen jox kon sant naa leen gërëm leen ka may mujjee nag mooy sama borom kër li tax nag ma koy gërëm mooy man fu ma neex xam fu ma neex yàlla yàlla ma yàlla baal ba ñuy tàmbaay dem naa ba ku ñu wax sax ma ne ak ah, sama rakk ji ne leen dañoo divorcé ba yëf yi jeex wallaahi la si wax naa lool ba yëf ya jeexee rek tey bañ doon ñëwal ne ñu ñëw moo taxit ñu gaañu leen ko te moo bu ma ko may woon nag du ma ko def day métti rek day raaga su ma raagee moom danay ne carrément maa tooñ parce que war na maa ne toogal ma toog waaye musuma ne toogal des fois damay dem ba yegg fa ma jëm dina ko ne di ko doog a woo ne ko ne maa ngi bërëb sànq te musu tee rek ba yéen xam ngeen ci dara waa xaajandoo dorandoo boo leen ñëwee ci kër gi ñun ñëpp balaa taaju lu ne la ñuy waaye du ne mbuu du ne maa. kon ñaanalal leen ma ko yàlla gudd fan sant ko gërëm ko sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp ñaanal ñëpp jaam wasalaam ku ma ci tudd rek nag ma baal du ñëwal ku ñëwul moo taay bu ñëwal ku ñëwul ñëpp sant naa leen gërëm leen jël nuyoo beeg sant bi jox euh, euh, euh, jox Adja Kébé mu ñu jox leen sama seet la daate bii nag mu wax ci man rek ci moom la ne ndax bu ma bu ko neexoon bu ma ne ko kaay ñu dem nga wanale ma ak président chef de quartier doo ma ko wanale yóbbu nga ma secrétaire général ñoom ñëpp ñu wër ñu toog ma wax la ma leen wax mu doy ma sant ci loolu gëdëm li te man mu tuuti mii man mu ñàkk fayda mii man mi tekkiwul dara mii ngeen teg ma fi ma teg yàlla na leen yàlla teg fi ngeen ma teg ci barke yonent bi sallallahu a wa sallam ngeen baal ma ak ku ma ci tudd rek baal leen ma wasalaam kontaan naa ci ñëpp. ci mouvement bi ñu koy nuyu. loolu la ñuy nuyoo Ndeye Fatou Niang mooy itam représenté Guédiawaye di nuyu suñu doom suñu xarit Amina Fallelou macha allah moo jiite jeunesse bi mooy itam ñu koy ziar bokk na ci délégation bi. di nuyu Pape Camara moom itam bokk na ci délégation bi wax ne président Ablaye Modou Guissé ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di lépp moom la parce que yàlla moo ñu boole ñu ànd di liggéey ñu yor plateforme moom mu yor ONG. ak ah, bañ àndee moom ba tey nag wéccuwuñ ko ah, parce que képp kuñ ne ñëwal bind ci ay kër Sénégal nag lool la loolu ñu ne dañuy naxe lii nag du ay nax président mu ngi nii da ngay ñëw bindu ki nga xam ne moo inscrit mu ñëw toog déglu kon kooku làqatuwul mu ngi nii toog su ngeen amee question yi ngeen koy posé ngeen posé ko bu ngeen amee lu ngeen koy laaj ngeen laaj ko moom moo ñu may logement yi boole ci may ñu formation yële parce que dafa bëgg kenn ku ne soo jotee sa am sa métier tey nag def nañ ay formation macha allah def nañ ñeenti façon formation muy sirop concentré nga xam ne day am 6 mois def nañ sirop dinjeer def nañ siro màdd def nañ siro mango def nañ siro bisaab def nañ itam lait concentré boobu suba lañ koy defar def nañ ñetti façon koko def nañ koko jinjeer def koko meew euh, def koko mànd lépp na grâce à président Abdoulaye Mamadou Guissé tàccu leen bu baax a baax a baax nga xam ne mu ngi jàppale jigéen ci social di jàppale jigéen ci développement li ma wax rek kër yi moom lépp lu ngeen bëgg a président mu ngi nii incha allah dina leen tontu di remercier Adja Aïda Sow kenn mënu koo fay chaque jour mu ngi Dakar te li tax muy ñëw Dakar yéen jigéen ñi do moo tax Aïda di ñëw Dakar ko ñaanal leen ko bu baax su yokkoo ngeen yokk kon ñu ngi ziar ñëpp di déggal si kàddu yi jërë ngeen jëf merci beaucoup. seytaane rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ñu sant yàlla julli si sang sang yi alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar kontaan na bu baax a baax a baax ci teewaay bi ngeen teew tey ak rafetaay bi macha allah yàlla nañu yàlla defal jàmm ba ñu koy teewaat fii di jël si suñuy caabi di darajee Muhammad alayhi salaatu ba jógee nag ngeen tàccu ñu suñu président bi bu baax a baax a baax a baax Mamadou Abdoulaye Dissa mi xam naa ne moom bu ko fi yàlla bàyyee te yàlla ko fi yàlla bàyyi Sénégal dina mel na Paris Sénégal dina mel na États-Unis ndax loolu rek la ñuy yéene ndax kaay ubbi dëkk tubarkalla macha allah te joxe woo dara musta am Sénégal mu yéene ñu ko nag képp ku julli rek na nga ñaan projet bii. yal na ko yàlla eggal ak jàmm te ñëpp fekk ko ci daraje Muhammad alayhi salaatu wa salaam di nuyu nag sama ñaari bàjjen yi di leen ziar bu baax muy Aïda Sow Mbour Aïda Sow Bikin euh, maa ngi leen di nuyu bu baax ñoom samay bàjjen lañu kontaan nañ ci mobilisation bi tubaarkàlla macha allah di nuyu suñu président Adja Ndeye Sène Mame Bamba di ko ziar bu baax. liw bi liw bi ngelaw li la. dëgg la tubarkalla macha allah lu mu gis lu baax rek yéene na ko jigéen ñëpp yàlla yàlla defal la jàmm. maa ngi nuyu sama yaay Maguette Dia di nuyu Adja Ndoumbé di nuyu Yaya Seck di nuyu délégation bi ñu àndal di ñaan nag yàlla nañ fi dellu si waat balaa yàgg di joxe caabi yi te ku bindu rek yàlla yàlla def nga fekkee loolu ci dara jëriñu ko nekk Amina maa ngi lay nuyu bu baax di leen. déggal loolu fay naa la. jërëjëf jërëjëf. kon ñu ngi sant bu baax nag di gërëm di kontaan di wax ne suñu président boo ñu mayee kër di jàngal ñu métier ñuy liggéey dese la doon dara kon dañ lay ñaanal yàlla lépp loo sumb yàlla nañ ko fekkee lépp loo xamante ne rek yaa e ngi ko mébét ci góor ñi ak jigéen ñi yàlla na ko yàlla na ko gañ di wax ne nag bu ñu jógee bët gi démb fee dégg naa nga ne jigéen ñi rek ñooy fee sa tànk yi waaye sëf nguur la nguur moom góor ñi mention spéciale vraiment vraiment waaw président yaa ngi doon wax keroog nga ne jigéen ñi rek ñooy ñëw toog si kër yi jigéen ñi ñooy toog si tànk waaye tey moom pour vraiment góor ñëpp ñëw nañ formation waaw di gërëm ñëpp nag di sant ak a rek di yemaale samay kàddu fii macha allah. lii sama jeunesse bu dëgër bii sama jeunesse bii nga xam ne fu ma jógee ñu jóg ah seen président ngi nii monsieur Guèye. tàccul ma leen leen ndax yi xale yoo xam lu ma dëkk ñu ñëw ñoo jiitu ñoo jëkk ci fecc ma ñoo mujj ci fecc bi yàlla na leen yàlla defal jàmm li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla ko yàlla defal ñoom it nañu leen sédd ci kër yi. rajo rahim ngi di nuyu ku nekk surtout ak sa sant di nuyu ak jërëjëf éducation manam maanaam kilifa yi ànd ak kilifa yi diine maa ngi nuyu jeunesse su Mbour yëpp ya. di nuyu jigéen ñi ak góor ñi ak groupement des femmes yi fi di dellu nag di nuyu bu baax a baax Adja Aïda parce que nit bu la nekkalee ci ci naaj yow nga ci buñ da ko moom defoon na ko ci naaj dama wuti ba mu am tey ñu ñëw fii toog ak yéen xool liggéey bi nga moom la liggéey fan yi yëpp mu jëbbal ñu ko ñu dem yóbbu ko def ko nu mu waree ba ngeen di mën def seen kër kon ñu koy gërëm bu baax a baax mais wala day naan bu lëkk lekkee alom na ko gërëmee coy coy ndey seen jërëjëf ndey ya indi bindi yi parce que lii yëpp yooyu yaa ko waral. merci. lar nag day wax nit mënul yëg ci garab ba jot garab mais mën na yëg ci nit ba jot nit ba am nit te loolu la def parce que mënoon na def premier enrôlement rek yemale ko Dakar mais dafa ne sama plateforme bi képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk ma yaa ngi ci quartier damaa bëgg nga bénéficier ci programme bu loolu weesoo di nuyu sama président Abdoulaye Mamadou Guissé. tàcc leen loolu waaye nga xam ne c'est le président de l'OMAS City en même temps c'est Sénégal nit ki nag bu fekkee yaa ngi bëgg jëfante ak moom da ko war a xam nit bu lay jëfal dara da ko war a xam parce que tur bi rek doy pour man damay wax jëf ji moo gën a am solo parce que bi mu juddoo ba léegi moom ci social la nekk OMAS ñu ko créé en 2000 mais balaa ñu koy créé en 2000 moom dafa dem jàngi tugal ba am ay lijaasa nekk ingénieur en art et maanaam dafa jàng dafa saytu di dafa jàng ba pare nekk koo xam ne kii dafa jàng lépp loo xam ne aada ak mu jàng ko nag am am lu ko waral bu mu delloo jàng ba pare dafa ne man lii su ma ko yóbbee Sénégal est-ce que Sénégal xam nañu ndax nga xam naa mën accompagner Sénégalais yi damay delluwaat jàng ji beneen jàng boo xam ne su ma ñibbisee dinaa mën a accompagner li nga xam ne mooy sama jàng aada cosaan te diplôme boobu kenn moo ko amoon fii muy Léopold Sédar Senghor moom kenn moo fi amoon nekkoon un agréé en art et culture mu créé le premier festival de la culture ne ici au te loolu moo ko bu mu jangee ba pare nag yàlla def avant muy doon mu doon jàng di pare dix ans mu am fekk mosoon na bind ci Ablaye Wade benn euh, paragraphe boo xam ne Ablaye daf ko dégg wóolu ko boobu mu nekk étudiant yàlla def bu ma ñibbi si fekk Abdoulaye Wade nekk na président de la République laaj ko ko mu ne ko man maay sa pap man maay doon sa pap bay la yow def ko doom mu ànd ak Abdoulaye Wade ci loolu ci xarañam ak mën-mënam mu créé benn banque buy naan Ecobank bi nga xam ne dafa nekkoon Pikine di financer 500 millions par année pendant 16 ans. boo nee 500 millions juróomi téeméeri millions lu doon dugal par at di ko accompagner néew di doole yi.

pour dimbale leen ñii mu yóbbu leen États-Unis ñii mu yóbbu leen Canada ñii mu yóbbu leen France tey jii am ñoo xam ci ñoom ay cadre lañu ñeneen ñi bare bu ñu jàng yàlla def bi Abdoulaye Wade nekk ak moom fekk dawal na ay projet yu bëri ànd ko ak président lay Wade parce que bu mu defee am waxtu bi dellu jàngiwaat def finance ñëwaat dafa fekk mu bàyyi fa ay kàngam yu mag a mag a mag ay vrai artiste euh, français ku mel na Jean Atel nga xam ne ku am xaalis la ku am xaalis ku mën def aar la ba pare c'est le meilleur artiste français boo xam ne en peinture yore xaalis bu dul jeex bëgg ko lool bu ma bindee Omar bi fa la dawaat jébbal euh, Jean Atel yi nga xam ne moom la bindoon Jean Atel def ko xool mu ne ko monsieur Guissé je sais que bind nga li nga bind mais man amul dara lu ci def man dem koy adapté man sama la bopp parce que man da nga ma arrangé yàlla def boo te def Jacques kii bi def ko moom omata euh, bu France boole ko ak beneen kàngam buy naan Colin Powell da nga xam moo nekkoon chef euh, détat am lu mu koy am lu mu ko digal mu ñëwaat fekkaat fi président Abdoulaye Wade ci la créé les sept merveilles du Sénégal le grand théâtre de Dakar le grand théâtre bi nga xam ne moo nekk Dakar moom moo ko bind jëbal ko Abdoulaye Wade dem wuti ay financement ñëw jëbalaat ko le grand théâtre de Dakar le monument de la Renaissance moom la ko Colin Paul joxoñan Abdoulaye Wade ànd ci mu ñëw jëbal ko Abdoulaye Wade mu delluwaat mu jëli financement indiwaat ko fii ci Sénégal ñu def monument de la Renaissance moom ñoo xam ne moom la le ministre de la civilisation moom moo ko bindoon jëmbal ko Abdoulaye Wade mu dem seeti ay financement indiwaat ko ñu réaliser le musée de la civilisation pour ne citer que ça maanaam mu yem fa beneen lu def bu mujj mooy mémoire de Gorée noo xam ne moom moo ko bind ànd ak yeneen kàngam yu mag mel ne ay joo boo xam ak ñeneen ak ñeneen ñu jëmbal ko Abdoulaye Wade jotu ko def mais Abdoulaye kii président Macky Sall avant muy dem def na la première pause de pierre avant muy dem te yaakaar naa ni loolu ñëpp gis ku def li mu def di nag lenn rek laa ci mooy xar yi mu doon joxe de 2000 à 2016 tabaski bu nekk ñetti camion xar la doon indi amul xaj ak seen day naan xale yi bàyyi ba guddi kër boo la taxaw joxe leen ko benn xar pendant 16 ans bu fekkee ne waa Pikine ñu ngi fi mën nañu li may wax nii bu dee waa Pikine ñu ngi fi mën nañu ko seede. la ay artistes yoo xam ne daf leen yóbbu te desul ci dara te xaaru ci dara ngir yàlla donc moo tax dañuy dox ci yoon boobu yàgg am ku taxaw jàpp ci loxoom man ko président xamee ne ma non xamee wu ma la ah man may déglu man nga yóbbuwoon États-Unis waaye booy fàtte woon du ma la koy jox sa yaay a ñëwoon ci man maa sa papa moo ñëwoon man jotuma woon sax gis à à 100 pour cent kon lu dul benn lu dul ñaar lu dul ñett ci arrondissement koo xam ne day daw. xatalaay ba jàpp ci loxo wax bu baax moo xam ne jot na nekk seen diggante ba pare nag li waral mooy nga xam ne ki fi jógee maanaam li président euh, Macky Sall dafa ne woon nañu wàññi logement nañu wàññi location yi mu def ko décret gaa yi bañ ñu bon kër yi mu defaat ko loi gaa yi bañ moom fekk boobu tam mu ngi denc projet bi nga xam ne mooy les 5000 logements avant mu nekk 10 000 logements 5000 logements pour les artistes ak mu ñëw jëppal ko Macky Macky mu ne ko lii nag comme que amoo say financement am nga say partenaires yoo xam ne yaa ngi doon liggéey ñoom te nan lañ ko def te bëgg nañ jëriñ suuf bi nga xam ne ko ba pare man dinaa la jëmal ci lenn lépp li taxe naa ko dindi lépp lépp li impôt naa ko dindi loolu moo yóbbu le gouvernement Sénégal parce que à hauteur de 70 pour cent maanaam bu doon téeméer juróom ñaari fukk yi nañ ko ñoom tegg nañu ma gisaay boo xam ne moom nañu waroon fay mu ne mu ne 30 pour ñu jënd terrain yi fële ci jas diggante jas ak mbuur bi xam ne fii ngeen bokk te di suuf si wax naa mun naa ko wax mun naa wax sax waa mbuur ñoo ko bokk parce que seen commune la bokk kon lu jig nga yeneen jaar te buñ fi ñëwee lu war la te pourtant ñëwoon nañ fi fii lañu njëkk def enrôlement fii lañu njëkk def suñu premier sortie fii ci Mbour on a presque une centaine parce que dañuy yàqam doon doon dem Passy ñu jógee bi kon côté une heure la ñu jógee dem parce que joxe ko 500 loolu mais comme que boobu temps amuñu ay représentant yoo xam ne mënoon nañu wax ñoom dañoo ñëw rek évoluer par rapport ak ki ñu xam ne moom lañ fekkoon fi ñu def premier arrondissement bi mooy les premiers arrondissement yi ñu def fii lañ ko defee ci Mbour fii ci Mbour gii fii lañ ko def loolu moo leen daw dañoo ko invité mu egg kon ngeen xam ne moom xarañam ci nekk ingénieur en agriculture kon lépp luy aar ak cosaan yéen moo ne def ci bopp ku xam aada xam am cosaan di nga xam lépp ku amul aada amoon cosaan réew boobu du dem boo leen gisee Chine am lu mu am tey Chine nekk premier puissance deuxième puissance mondiale cosaanam ci culture am di lekk lu muy béy di sol yu ñuy na lépp loo xam ñoom ñoo ko moom seen bopp moom la ñu gën a utiliser di di def ni jigéen ñi kon loolu mooy base bi boo gis ni ñuy def lii pour que nit a xam ne nii kenn jëlee ko France kenn jëlee ko États-Unis lépp fii la. boo dee bisaab fi nga ko jëlee boo dee matt fi nga ko mango fi nga a jëlee te muy ko defar ba xam tubaab bi moom lii sax la gën a bëgg la kon lii mu nekk développement réew OMAS nag daf ci accompagner artisans yi ak artistes yi ñu def lii xam nga boo dëggee si kër boo amee gan ba doo sonn di dem jëndee boisson boisson bi am fu mu jógee nga am sa maanaam nga def nga jox ko sa sa sa gan mu naan bépp moo gën ngay indi jëndi parce que yaa ko defar si bopp waxuma la na cere bi ak yeneen ak yeneen xam ne ñu ngi koy defar te di gën a renforcer nit ñi ci maanaam mën am loo xam ne dañ ciy téye parce que cité boo bu ñu ko demee ñëpp am fu ñu jàpp kon loolu du fa am. léegi nag loolu am na ba yàlla def na mu jëbbal Macky li mu leen wax mu def premier lancement bi le 29 décembre 2023 lañ def lancement bi bunt kër lañ ko def comme ni comme ni ngeen toogee ñëpp a ñëw artistes yëpp ñëw artisans yëpp ñëw. néew di doon yëpp ñëw ñi jógee ba Tamba ñi Casamance ñi yëpp côté yëpp ñëw bindu ko. bu dee de 5000 presque moom dina leen à peu près ay mille et quelques mille et quelques dina yàlla def média bi yóbbu ko président gis ko wóoluwaat ko mu ñun ah man de xam naa ne solution bi ma ci sa loxo la nekk. te incha allah su logement yi sa loxo lay nekk ba keroog ñu koy pare kenn du ko laal dañ ko jox ministère de l'urbanisme di ko def dañ ko jox habitat yow mi nga xam ne ingénieur yi seen partenaires yow ni ñu koy jox. léegi nag dama lay yokkal yi nag cinq mille parce que gis naa ni engouement bi mu am kon dëkk bi fii la mu woo yokku ko jas ñoo ko leen kayaat jox ko yeneen cinq mille logement xam ne kenn jënd ko dara moom Macky Sall moo ko may mooy que dix mille logement bailleurs yi am rapport premier rapport bi ñu xam ne c' est une nécessité parce que ku jël logement nga jox ko un Sénégalais loolu day day jeex ci Sénégal parce que à partir de quinze loo mënoon liggéey ci àdduna même boo nekkoon un enseignant doo da ngay nekk di xalaat nan ngay fay loyer bi njaboot yi lu muy lekk da ngay da ngay da ngay nekk foo xam ne da ngay kër de 15 di gën a bëri tey mbokk mi mi ngeen di dégg ni kër yi dañoo xat kër dañoo xat am na lu bëri xëcc ci kër xale bi day am jom man di fu mu dindi ko jom jom ñu nag fu mu koy mën a mënu ko am ci réew fu mu génn mais logement yi bu fi amoon démb maa barke démb ñoo am logement sociaux ndax ne ku nekk amul sa logement loi su am mbokk dootu fi amoon ci Sénégal te loolu la ñuy dox doxal nii incha allah. mag ñi dañu nelaw guddi xale yi nekk ñu mbedd bari kaw étage bi ba bu set ay 5 heures matin bu bu ñu noté ñoom ñu dem tëdd ñeneen ñi dem loolu moo fi am am na xam ne seen kër nijaay yi dañuy dem moo tax kenn bëggatul vacancier bu njëkk da nga nekk Fuuta baa nga nekk Casamance bu Bakar jotee ñu ne dama seet sa nijaay baax sa sa sa sa sa tànk loolu moo tàggatee mbokk mi ñàkk dëkkuwaay da ngay bëgg sa ko ñëw ci yow mais amoo foo dëkk loolu nag daf ko xalaat bind ko li may wax de daf ko bind li may wax ni ko bind ci ci livre loolu la jëbbal partenaire ñu ne ko nag léegi waxuñu ne diini logement léegi fii ak 10 ans 250 000 logements lañ la may yoo gisee mais à à court terme c'est 10 Madame, c'est l'Ougat. Madame dit de 2 ans, trois ans, c'est 10 000 logements. Mais à court terme, c'est 250 000 logements. Dans chaque région, Inch'Allah, le projet de a 3 000 logements par région. Les 14 30 000 logements là-dedans, 30 000 logements par région, par dans les 14 régions. Le nom Nous avons que nous avons Nous avons que nous avons lu tax parce que da nga ne da nga bindu koo xamante ni mënoon na fa keneen mënoon na fa bindu yow nga bindu ñu jox la kër sa njaboot moo ko moom parce que ñun xooluñu kii di bindu mais dañu xool njaboot kon ci turu njaboot gi lay nekk moo tax ñu naan ci koy bi sa tur na sa sant moo jiitu sa tur moo ci toog fan nga juddoo ak ban date nga juddoo numéro carte d'identité numéro téléphone région secteur d'activité en comment dirais-je lieu maanaam noo noo sant noo tudd kañ nga judd ak lépp wax naa ko bu dëgg mais en cas de décès maanaam bu fekkee nit ki faat na mbaa nekk fi kañ ngay kër nga naan maa samba loo bokk ak moom nga ne sama sët la sama doom la sama jarbaat la sama mag la sama rakk la sama yaay sama papa la loolu ngeen bind noonu ba pare ngeen signé léegi nag signature boobu mooy fa laa bëgg a ñëw bu fekkee ne da ngaa toog sa kër nga ne ay man de mën na ma ñëw mais maa ngi lay envoyé sama. Euh, bulletin nga kii comment dire sama comme garantie nga nga inscrire ma ay de mën la noonu ñëwal nga bañ ñëwal nga bañ nga def ba nga dugal sa kii fekk yow ñëwoo ëllëg bi leen jox seen titre foncier yi fiche yooyu nga xam ne dañ ci bindu dañ koy scanner machine bi da koy yore boo bu ñëwee ñu ne ah, moom la c'est-à-dire signature bi ñëwoo kooku dañ koy dañ koy génnee doomu jaay takk képp koo xam ñëwoo da ngaa yóbbante bokk ñi xam ne def leen ñor mooy ñi fi toog alxuraan day naan ñaar bu ñu bokkee dara ki gën ci bëgg moo ci sonn ñi ko ordonné ñoo ci gën a sonn ñi ñoo leen gën a bëgg bien vrai ngeen mais ñi xam ñoom ñoo dem jël indi di leen jox di ngeen di ngeen war am no di déglu di ñuy wax ku fi joxee keneen ñëw signé à sa place bokkatoo kooku la leer kër yi 300 mètres carrés la norme Sénégal 150 mètres carrés la kon dañu naan un citoyen deux toits man bopp bu nekk ak ñaari a ñaari toit ñaari ñaari ñaari kër parce que lu tax ñu def loolu munoo nee nit man dama leen di déglu ci loolu ma toog kër ñetti fanaan mais demal nga luwee ji fi ngay liggéey lépp dañu jël en charge maanaam bu doon tey da ngay jël da ngay fanaan sa kër boo yow ubbi kër beneen kër gi sa salon moo koy def bu ñëw da ngay faral sa kër ubbi beneen kër gi nga dugg sa atelier bu utile moo fay nekk. bu dee da ngay transformation da ngay fay fanaan beneen kër gi beneen booy yow nga def ci sama kër nga def ci sa transformation bi bu dee musicien nga da ngay fanaan sa kër beneen kër nga def ko studio noonu lay doxee bu fekkee amoon loolu yëpp mënoo loolu yëpp say doom dañuy tuddee mbedd bi maanaam du nekk di def ay potinaan déedéet lépp ci biir beneen kër gi nga koy defee kon dañuy mel parce que si di ko def dans les normes am ay acteurs yu yàgg am ay heure d' entrée ay am ay ay heure de sortie maanaam bu fekkee tey bokkoo ci ci cité bi nekkoo ci répertoire boo jógee woon loolu ñu ñoo ko tëralee déedéet ba yéen ñoo ko mais lu dugg Sénégal yàq lu fi dugg yàq kooku xool na ne oto yi daal di ci benn ak yëpp parce que dañuy bëgg a def mu baax mais dañ ko dañ ko jéem a def dañ ko jéem a dañ ko jéem a topp mais foofu dañ koy def à tel point que coopérative bi moo moo ciy veillé dañ coopérative coopérative boobu nag. mooy wax lii mooy am lii du am même ñi ngeen di fay daa ngeen fay kër yi mais du doon at yu bëri ma jox leen ci rek misaal plan ko taxaw ñetti at mais ñu ci duggoon at ak ñetti weer la kese dañu fay ñu baal la loolu mooy social mais mun a dugal nit ñi ci benn nga ne ko def 30 ans ngay fay kon noo ko may mayoo ko dara as tuut boobu ngeen di joxe moom lañ defar beneen garanti pour jox yeneen dëkk yoo xam amoo ak seen bëgg-bëgg fu mu toll par rapport projet bi ñu lay loolu mooy tax nag coopérative bi mooy déterminer ñaar jaroon fay coopérative nan lay demee tey jii ñoo ko ñu fi dund yëpp ñu ngi fi mais avant ñu fi kii dañuy def juróomi ñaari nit non juróomi benn xam daf daf koy defaat ci ci biir coopérative bi ñu bokk ci conseil administratif bi ak yi nga xam ne bindoon nañu ko avant ñu ñëw bu demee ba yëf ci jeex ba yëf ci ñu ne gën gi néew di doon ci mun na fay ba vingt cinq mille francs par mois yow mi nga xam ne dañu teg vingt cinq mille francs da nga doon fay cent cinquante mille francs bu nekk xanaa kay vingt cinq mille pour un an deux ans ñu may la si kër dëgg nga kon dañu ñëw rek dañu ñëw rek dëkk bu dee dañu ne toujours ñu ñuy basé wu ci seen am-am ak seen mën-mën du ñun te loolu coopérative bi mooy képp koo xam ne dund rek dëkk bu ñu dem coopérative bi am ay éléments dañ koy jël ñu bokk ci conseil administratif ñoom ñooy déterminé même bu fekkee dara am na ko conseil administratif moom mooy toog acté loolu. léegi nag li ci des mooy lan état Sénégal bu ñu ñëwee di leen jëppal projet dañu ne président bi doon dafa ay néew doole lañu bëggatuma dara loo xam ne tegu seen kaw ba mu ëpp loo xam ne ñu leen jox sax ñu dem ba gerte ko par rapport ak charge yu bëri. moo tax dañ leen dem ba station solaire lu ñu mën a consommer consommer consommer loo mënut a am ci cinq mille francs doo koy fay solaire junni benn junni parce que solaire la solaire bi naaju yàlla la pare yi day teg pare yi prix bi dina génn ci loolu en moins en court terme dañ ko génn ndox tamit lu mu métti métti métti dañuy jël li leen neex ci ndox mais cinq mille parce que forage amagul inscription li ngeen def nii seen organisation inscription bi amagul parce que bind ngeen mooy li ngeen di bind mooy seen inscription. te comprendre mais payoor bi ci coopérative bi la jóg ñoom ñooy wax ne nii ngeen di fay lépp lépp lu ci def tey dañu leen fay ci lañu ne nag doo dugal nit ci def parce que amul lu ma lu ma lu ma jëfandikoo mbaa lu ma liggéey moo tax ñu def lii te am na leneen loo xam ne mu ngi mu ngi ci ginnaaw bi bu soobee rek am na yeneen financement yoo xam ne incha allah ci période la bokk. loolu yëpp daañu ko mos a génnee nga xam ne jot nañu def di lu mel noonu kon nga xam ne président Abdoulaye Mamadou Guissé dafa koo xam ne visionnaire la visionnaire nag mooy koo xam ne da ngay xalaat mais pas pour sa bopp mais pour sa ànd sa dëkkandoo yi ak li la wër parce que ñoom bu ñu amee jàmm dañu am jàmm parce que nit sa jàmm mooy sa jàmm dëkkandoo dëkkandoo tamit jàmm mooy li nga xam ne moom lay jàkkaarloo kon la amee jàmm yéen dinañ am jàmm kenn jëm ba am am jàmm te jàmm Sénégal amul dox amul amul kër moo moo fi moo fi jàmm jàmm Sénégal kër rek mooy problème te kër yi incha allah ñun ñëpp daan nañ ci def ñaanalante nag buñ fi jógee suba rek fi ak ngeen ne Aïda ànd suñu kër même boo doon togg guddi ngay préparé pour añ parce que dañuy da ngay xam quelque da nga war a togg suba boo yeewoo bu nga fàtte añ bi ne da ngay di xalaat ndekki bi te boppal di ñëw te bosukat di ñëw te loolu da ngay nekk di yóbbante doo yow rek dafa dem mu jëw mu jëw si kaw kii du leen ah seulement nag kër di nga gis kër bi ñu tabax ay at dëkk jaboobu wax naa leen jaxaay trois ans la bi tamit kat leen deux ans à trois ans voire même un an six mois ou bien deux ans six mois voire trois ans donc loolu mooy loolu mooy norme yi projet yooyu bi ñu génnee ñi nga xam ne ñoo njëkk a bind décembre ñoom ñu njëkk a jox wala njëkk a génne nag bu ñu la woon xamal ne sa bopp ñëwoon kon ay dem yi na xelam daal yéen tamit seen xel daal ngeen ko sonal trois ans yi dina motte mbaa deux ans yi dina mot mbaa un an yi dem dina mot te bu ñu ko tabaxee ba pare ñi njëkk a bind la ñi njëkk jox noonu lay demee noonu lay demee bi ñu egg fii tey mooy suñu 35e enrôlement kon 35e enrôlement la wax xoolee li ñu toog yëpp ci 35e bu ne 35e enrôlement lañ bokk kon ñi ñi xam ñoo leen jiitu te teel nañ xalaat ñoom ak ñu demoon ci àll bi waxu dafa ci àll bi dafa tey basi ne noonu ñun dafa gën Dakar rek lu bari ñëpp ak lañ kon noonu lay demee doomu ak jigéen liñ ci ñaan yàlla mooy ñu ñëpp ñu ñaanal la ku nekk ñu ñaanal keneen bi ndax bu ñu teewee parce que mën nga suma dara fekk doog doog dara nga def ba mu jeex doo ci dégg nga dem ba def doo ci yàgg boo ceegee ngeen di fa am. kon loolu yëpp dañuy def dañ koy def ci benn ñaan ñu ñaanal ñaanal kii li nga xam ne sumb na ko yàlla bu ci cat dugg. parce que catam mooy seen cat moom bu amee cat dina am cat parce que daanaka ah moom la waxoon kon dinañ ko bañ a moom cat ngeen ñaanal moom bañ a am cat. te loolu moo fi nekk Sénégal da ngay commencé def dara parce que liñ fi nekk dafa bëri ñii naan du dégg ak dinañ arrêté wax nañ loolu du dara. donc ku nekk si dëgg nga nekk si si si Sénégal gi dèjà ba léegi ngay def ay yu mel nii mais deful amatu benn tool am nañ si dëgg nga ne surtout ñoom yaa ko moomal sa bopp yaa ko jënd sa bopp mooy niroo yaa dem jënd sa terrain am say bayee nga def loo xam ne nii kenn def ko ci réew mi tabax ay monument lépp li fi naan jëlee dañuy dañuy dem ñu jëlee monument yi ak li ñu defoon ñu ñu génn ko gàmm itoo kon nag lii ci bilan ñi nga xam ne ñëw nañ tey yàlla indi leen ñoom mooy le président Bachir ñu ngi koy gërëm te ku yaru la xam ngeen aussi moom it dina def continuité bi parce que keneen li mu defoon lu lu lu rëy la mais moom bu ñëwee mu ne trois fois plus que cela parce que ci bilan lay bokk tey bu loolu may demoon ba jeex ba ñëpp dugg ci ministre de l'urbanisme et de l'habitat mu ñëw tey ñu def cérémonie ko gën a kontaan moom président moo gën a kontaan a que askanam la ñu kon na dal ngeen xam ne lii lu dëgg la incha allah ñaanalante rek moo fi des. ñun ñëpp ñu toog ba bés ba ngeen ñëw ñu doon seen seen conseil doon seen caabi jërë laa mu dina wax di leen gërëm di leen sant waxaale yàlla. asalaamaaleykum waa Mbour ñu ngi nuyu ñëpp di leen baalu àq bu baax ndax toogaay bi yàgg na aussi di leen wax ne deux heures. dañuy dugg Mbour man ak sama délégation monsieur Sooma Niane euh, ñu julli àjjuma ci juma Malicounda bi euh, lu waral loolu mooy dëkk moom bu am diine boo xam ne lu mel ni Ibou Sakho yàlla ko yàlla yërëm yokk leeram ñoo fi nekk dëkk boobu boo fi duggee nga gàddu projet bu day nii logement sociaux yi li nga war a def mooy jaar fi nga xam ne mooy bunt bi te bi ñu fa jaaree tamit ñu ngi sant yàlla ndax bi ñu egsee mbooloo bi ñu gis wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu wër Aïssatou Sow madame l'ambassadrice ñu ngi lay sant bu wër si organisation bi mais aussi di noter que ñun ñu ngi soog a dem enrôlement ñu ngi soog a dem enrôlement gis daanaka góor ñi ak jigéen ñi tolloo ci li ci ñuy dem yëpp boo leen seetaanee télé yi muy TFM muy Sen TV ak yëpp. man boo leen boo leen journal yi ñu may jox parole dama naa leen bi ñu demee dëkk sàngam ba ci jàmm gën bi Fass Mbao bi rek c'est Aïda excellence Aïda Sow dama ne carrément foo dem jigéen ñi ngi gis ñoom ñoo ëpp lu ñuy bindu ndax dafa mel ni ñoom problème moom coono kër ak mettitu jamono adduna dafa mel ni ñoom ñoo ko yenn te loolu aussi tax na ko projet bi tamit dafa bàyyi xel bu baax si jigéen bi ndax ñun aussi li ñuy liggéey dafa am lu ñuy wax les indicateurs de performance boo xam ne ci li ñuy sukkandiku di gën may doole bi di gën a may projet bi doole ndax projet bi seen teewaay bi nii da gën a may doole surtout jigéen ñi ak góor ñi parce que day wane ne soxla ngeen ko ndax bailleurs de fonds yi ñun ñoom la ñuy liggéeyal partenaires yi muy américain bi muy France donc su si Sénégal dugalee alalam xanaa peut-être lu ndaw ay taxe la wala yooyu waaye fonds yëpp bitim réew lay jóge ñëw jënd suuf si fii tabax ko jox leen ko ngeen dëkk si tuddee ko logement sociaux donc bala may avancé nag si logement sociaux yi may nuyu délégué de quartier bi bi nga xam ne ak imam bi nga xam ne ñoom ñaan ma leen nuyu di leen gërëm di leen ziar di gërëm aussi borom këru Aïssatou Sow monsieur Seck ci daal bi ñu dalal biir këram jox ñu ñu añ ba suur waxtaanal ñu nit ku ubbeeku nit ku ah, koo xam ne intellectuel bu mag la ndax loolu la ñu woon ci biir këram mook ak njabootam ñu ngi leen di gërëm leen sant di gërëm waa Mbour di gërëm euh, ambassadrice ñi àndal ndax ñu ñu jar a gërëm ndax liggéey bu bëri ñoom ñoo koy def ki ci njëkk mooy ndey seen maam Bamba mii sama wet nee naa ko nag xam ma foo jëlee sa verre bi tey waaye daf mel loolu ma triché ndax ndax damay bëgg man artiste laa damay bëgg fu ma dem li ma sol kenn du ko sol waaye bëggee ne ma gis ko ma ne ma ne ndey seen tey def na ma ko donc di excellence l' ambassadrice Ndeye Maguette Dia bu Bargny moom aussi bi ñu demee bal bi daanaka lu mel nii lañ fa gis lu mel nii mais xam nga bi différence ñoom euh, dañoo organiser presque festival ndax culture bari ni lépp lu bari ni am ci culture ñoom génnee nañ ko bés boobu seen euh, tëgg yeeg euh, gaal yeeg lépp génn na bés boobu donc Ndeye Maguette ñu ngi lay remercier bu baax ma saw borom Yoff Euh, excellence madame la ambassadrice Boma Sow moom aussi Yoff même chose même chose macha allah di remercier Ndoumbe Fall secrétaire secrétaire Mbaye Sène et puis muy nit ku baax tamit nit ku nit ku dal mais surtout aussi di remercier ki nga xam ne moom démb rek lañ ko def ambassadrice muy Aïda Sow Pikine Aïda Sow Pikine moom aussi euh, mu def. Euh, dans mon formation yi suis aussi inauguré formation donc euh, madame Aïssoubou nous voulons remercier au nom de marque Sénégal au nom de marque France au nom du centre culturel centre Pauline Paul en 2000 le général Colin Paul le secrétaire d'État américain de partenariat avec Sénégal en 2000 ambassade amerique état Amérique bu ñëw président Amérique bu ñëw partenariat boobu ma def woon Colin Powell da koy da koy bindaat rek président Amérique bu ñëw nag da koy xaatimaat rek ñu kon ne liggéey ci loolu tàggat nañ fi artistes yu bëri yoo xam ne tey yéen leen di gis ci télé yi ñoo xam ne tey bu ñu toogee télé wala am lu ñu am ci culture yàlla ak omante la yóbbu nañ fi xale yu bëri tamit ñu dem jàngi bitim réew muy France États-Unis Canada te loolu yëpp ci OMART bëgg nañu banque tamit di leen finance financer 500 millions par année pendant des années ba tey jii loolu aussi bilan na mais nag soo gisee loolu mu yàgg ma dimbali bi ma nekkee xale ki ma njëkk a xamante mu tettee moom mooy président Wade te man boobu étudiant laa di jàng xaw dara mu gis ma sopp ma heure bu ma jàngul dem rue de Thion bureau rue de Thion ci buntu bureau ba mujj parce que président wax dëgg ba yóbbu ma Versailles dem na ba nga xam ne bi mu ba nekkatul président xam nga loolu moo gën a doy waar ba dem ba nekkatul président ñëw ne kii indi leen boo ko Versailles mu nekk ak man donc mu tàggat ñu ci lan mooy projet mu tàggat ñu lan ngay départ ci zéro dem ba au sommet mu tàggat ñu aussi àdduna lu ñu toll nii développement population bi si bopp moo war a njëkk porte développement te yéen ñi toog fii boo leen tollee boo tolloo boo tolloo ci ndax lii wóor na wala wóorul kon xam ngeen ni yéen peut-être toll gu leen fi àdduna bi toll àdduna bi fan la toll mooy tey projet yu mag yëpp bailleurs de fonds dañ koy yàkkamti réaliser buñ ne logement sociaux pour ay nit yoo xam ne ay sëy yoo xam ne dañoo tas lan moo ko tas xale yu war a jàng école nga dem ba commencé di sa doom yi di jàng bailleur de fonds ñëw euh, euh, euh, borom kër gi ñëw ne la fay location nga ne aw ma mu woo UG de justice UG ñëw génne la sa doom yi di taxawal ci benn yow ku jigéen bi nga dem sa kër yaay ji ku góor gi dem génn dëkk ba gàddaay léegi loolu ñu gis ne mu indi conséquences yu grave ci société sénégalaise mooy lan banditisme bi ñuy gis agression yi ah doro dorog bi xale yi doroge moom xale yu jigéen ñi jaay seen bopp lan ma koy indi nga nekk ak sa ndey ak sa baay amuñu fu mu dëkk mënuñu fay location kër gi am ñoo xam ne si waañ bi dañuy fanaan am ñoo xam ne dañuy fanaan guddi dañuy nelaw bu guddi ñenn ñi toog si buntu kër di ataaye bu ñëw ñu yeewoo ñooñu dem jël lal yi occupé lal yi nelaw ci mais loolu moo Sénégal ñoo xam ne dëgg ñun dem nañu Medina

ay kër yu bakkane la ay kër yoo xam ne boo ci dëkkee pour la seet si yow da lay naw kër yooyu lañu fas yéene tabax fii Sénégal comme ni ko directeur de programme waxee sànq euh, ñun def ay études yu ñu def la des années mu tey jii mun naa la wax ne cent mille logements état Sénégal ñoom ñu ko jëlee si Omar City ndax Omar City moo tabax projet ba pare état Sénégal soxla ko parce que man expert d' état à la présidence de la république la président Macky Sall moom ma signé contrat foofu ma nekk fa ba tey jii maa ngi ba tey jii maa ngi conseil spécial conseil économique social environnemental donc man ma lu may nëbbatu doxuma lu may nëbbatu li ñuy def projet la koo xam ne suñuy partenaire taxaw nañu pour exécuter ko Sénégal kay Kayar Bayar ak Diass ak aussi région yi bu nekk 30 000 logements sociaux Lors de tax boo fait pour que la région de nekk nous avons une région nous Dakar, nous région de Dakar nous région 30 000 logements pour les 14 régions donc nous avons 250 000 logements donc nous euh, avons toujours plaisir plaisir de parce que dañoo xam ne aussi dëkk boo xam ne la euh, maanaam bu gën a bu gaaw a développé la buñ ci tegee tànk parce que déjà Saly ni à côté euh, te aussi ñun xam nañu daf nañu xam nañ suuf am na fi mun nañ fi tabax bu ne mun nañ fi def lu ne léegi na ñaan leen yàlla parce que euh, président bi toog tamit di wax dëgg yàlla ku baax la Bassirou Diomaye Diakhar Faye ku baax la koo xam ne ne aussi bilan la bëgg defar réew mi la bëgg donc ONG bi nag comme que moom politique lu ONG buy politique ONG rek la boo xam ne développement rek la nekk ak culture donc ñun dañuy tàllal loxo ñëpp mais ñi njëkk a tàllal loxo mooy état Sénégal après nag teg si partenaire au développement partenaire yi nag 2000 ba léegi ñu ngi ànd ak ay partenaires comme wax naa leen léegi liñ fi jot a defagum yëpp jot mu si jaaraat léegi nag li si des mooy projet bi mooy ñu ñu ñu finaliser ko ay phase la nag soo ma wax na ko sànq. mooy enrôlement mu njëkk mooy wër def enrôlement xool ñenn ñoo soxla loolu bu ñu defee 14 régions yi ba pare def bu ñu defee enrôlement si diggante bi ñu architecte yeeg euh, ñu ko war société bi koy tabax yëpp yooyu yëpp signé na ñoom ñoom ay ay accord ba pare ñooñu dañuy xaar rek ñun moment bi ñuy dem di def wër Sénégal di enrôler ñoom ñu ngi defar plan yi ñu ngi defar lépp ñu ngi dem si sit bi man démb rek. maa ngi dem ca xerat yoo xam ne dañ ma wóor foofu partenaire yi ne ma kaay xool site bii ndax baax na te ñoom ñoo may précis ne ma kaay xool te dama dama sonnoon sax mais dama obligé dem ba foofu ànd ak ñoom xool site bi site boobu xam ne rek tegu na si kaw tël yi accessible na ñoom yooyu la ñu bëgg bu ñu yooyu li ñu am si yooyu rek ñoom dañ ne yii li ñu bëgg pour tabaxal ko askan bi donc ngeen xam ne projet la boo xam ne yéen a ko war a njëkk a porté yéen a war a njëkk a am fit parce que dama dégg léegi euh, artistes yi doon woy léegi euh, mu naan mu naan mu naan dama dama noté parce que mu ngi naan mu naan ko Ada kii Adja mbaa ragaloo xam nga xam nga yéen woykat yi dañ leen di déglu parce li ñuy woy dafa am solo mu ne mu ne ko Adja ragalo ragaloo mais effectivement mënoo nekk projet di ragal projet dafa mel ni nga nekk si kaw avion nga téye direction bi fanaan. dañ nekk juróom-ñaareelu asamaan muy naaw waaye léegi yow boo ragalee bàyyi avion ba kon di nga yàq suñu jëm donc ñun musuñu ragal suñu tiit ñun duñu ànd ak sax ku ragal ñun duñu ànd ak sax ragal te jamono bi ñu dund ragal dundu fa donc dinañu liggéey projet si kàttanu yàlla di ñaan ci barke ñu baax ñu nekk ci réewum Sénégal yàlla may ñu taxawaay ci barke sëñ Mountakha Bachir ñu yaakaar yàlla may ñu ñu taxaw ci barke Seydina Limaamu Mahdi ci bu Kounda ci waa Ndiassane ci mbay si Mansour mi nga xam ne mu ngi suñu wet may ko wér yàlla may ñu ba ñuy yeggali projet bi ngeen xam ne nag projet bi avant ñuy def sax avant ñuy commencer enrôlement yi man sëñ Mountakha Bachir avant ñuy def moom la sa baax man ko mbàcc ñun de dañoo am projet tubaab bi de dañoo bëgg a jàppale ci lii te bi may dugg biir këram daaru tanzil dama dugg rek mu jubal ci jàkk ci biir këram ci biir jàkk yi nekk biir këram mu jubal ci këram rek mu ne ñëw leen ma jiite leen cinq heures mu jiite ñu cinq heures ëlbatiku ne ma lan moo doon seen soxla ma ne ko Mbàkke ñun dañoo am projet boo xam ni tubaab bi dañu tabax fii Sénégal président Macky Sall dafa jóg la pour jàpp si mu wax ko wax mu ne ma mu ne ma ah loolu moom sotti na ba pare man ko Mbàkke dama bëgg nga ñaan ko mu ne ko Mbàkke dégg naa la mu ne dama ne li nga bëgg yàlla def na ko ba pare. donc man bii du ma ragal ma parce que xam naa ne euh, Sénégal dëkk boo xam ne la euh, dafa am benn sama benn xarit dañu nekk Paris France mu xool tout rafet. Tour Eiffel Sénégal yi dañuy ñëw ba Tour di fay di fay xaal bëri di yëg ci kaw Tour Eiffel di xool Paris France italien yi espagnol yi anglais yi américain sax dañuy ñëw Tour di yëg ci kaw. mu ne ma est-ce que xam nga histoire Tour Eiffel man ko déedéet mu ne ma benn waaye ko tax moo ko bëggoon tabax pour buuru France bi bi muy def projet won won ko ne ko lii laa bëgg tabax biir France buuru France ne ko yow dañ la la buur France bi ne yóbbu leen ko kii lañ ko war a yi sonal waaye tëj ko mooy Gustave Eiffel sonal ko sonal ko ba première guerre mondiale deuxième guerre mondiale am gars yi bëgg télégramme ñu ne buñ pour ñu defar télégramme il faut ñu xool fi gën kaw France def ko fa te boobu projet waa ji rek fa nekk mooy Tour Eiffel gars yi woo ko ne ko waaye yow sa projet bi léegi nan euh, mun nga ko defar mu ne mun naa ko defar ñu ne ko laaj ñaata la laaj mu wax xaalis bu dul jeex buur bi ne ko loolu du ma ko ci def ndax loolu su ma ko ci defee sax askan bi rey ma mu ne buur bi léegi bàyyi man ma dem canal de Suez Égypte fekk boobu Égypte dañ doon dañ doon construire le canal de Suez mu ne ko bàyyi ma dem Suez signé président Égypte bi buuru Égypte bi contrat su ma fayee xaalis xaalis boobu ma ñëw tabaxee ko Tour Eiffel Tour Eiffel mën nañu ko tabaxee France ba tey nguuru France def ci dërëm te ba tey France si gën a jëriñ donc Omar Sy yi aussi c' est la même chose ku yaakaar ne mun ta nekk bon yaa ngi nelaw projet la bu tubaab bi accordé partenaire yi accordé projet la boo xam ne dafa ñëw ci jamono mooy baye na foo yëpp tey lu allégé askan bi la ñu war lan moo def nañu banque ñun OMAD def na banque 500 millions par année di ko jox nit ñi waaye ba léegi ndóol baa ngi toog ndóol baa ngi ñu ngi leen di génne seen kër yi ñu ñaa ngi feebar bëgg a faju mënuñu faju waaye léegi nga gis ñu ne kër mooy priorité léegi nit ñi amatuñu kër yuñ dëkk waaw léegi luñ defar ay kër ah loolu fi sës ñi nan la Sénégalais yi bëgg pour alléger wu pour coono bi wàññeeku léegi dañuy defar ay kër dina permettre xale yi gën a jàng foo ay yi gën a dëgër couple yi gën a dëgër mën a jur seen doom ci jàmm yar leen ci jàmm ñu màgg ak jàmm loolu la ñuy dugg ci logement sociaux yi di xeex délinquance juvénile mooy xale yi nekk si mbedd yi di xeex di naan di tux di def yooyu yëpp projet bi da ko jël en compte donc maa ngi sant bu may daanee mu ngi guddi maa ngi sant euh, madame euh, son excellence madame l'ambassadrice Aïssatou Sow

mais suba ba léegi ñu ngi naan ma 500 tuuti léegi nag ma waxtaan ak des programmes Soma ma ne ko dolli leen yeneen 500. ñoom ñooy donc donc loolu la ñuy tëjee waxtaan bi di remercier euh, formation yi nga xam ne aussi parce que ndaje bi lu tax lu mu solo gis ngeen lii ngeen gis nii lii lii jigéen ñi ñoo ay jigéen yoo xam ne mosuñu xam lan mooy transformatrice jigéen yooyu ñoo defar lii sur la supervision de la formatrice madame l'ambassadrice Ndeye Sène. tey lii xam nga lu muy jëli boo demee ba ñu jox la kër.

tànk lu ñuy fexe ba mbuur li si des nag ngeen ñaan yàlla suñu borom ba ñu yàlla ñu yegg si jàmm ak salaam asalaamaaleykum